soxna Astou Thierno Mbacke soxna Astou Thierno Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1902 ci dëkk bi nag di Daaru Marnaan nekkit nag ci Touba ci dëkk boobu nag la feeñee jamono ci atum 1902 muy doomu soxna Mareema Balla Sill ak maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru moom soxna Astou Thierno Mbacke bi mu feeñee jamono nag ci atum 1902 ci suuf si nag di Daaru Marnaan nag ci Touba waajuram nag maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru booba nag mi ngi sànno ci ngan nga fa ku baax ki Sëriñ Touba Seexul Xadim nag doon amal ci sëriñ Siré Lo ginnaaw bu ñu ko yëgalee ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim di ko xamal ne daal soxna Mareema Balla Sill am na gan te jigéen la Seexul Xadim nag mi ngi doon sàkku itam nag ci maam Ceerno nag di ko xamal ne nag na delluwaat nag daaru marnaan bu demee nag doomam jooju nag feeñ jamono mu fayee nag Seydina Aïcha mi nekkoon nag doomu Ababakar bokkoon itam nag ci saxaaba yi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam soxna Aïcha moom itim nag soxna si ngeen ngi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam nag la woon jëmm jooju nag la Seexul Xadim nag sàkku itam nag ci maam Ceerno mu fayee ko nag doomam ji maam Cerno itam nag bàyyi ko sànnoosi ñëwaat nag daaru marnaan ci atum 1902 la ca mois de décembre ba moom soxna assu nag mbàkke ñu gën koo xam ne nag ci soxna assu Cerno am na nag ñu bokkal soxna Mariama Ball Sill ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moodu Abib Mbàkke ibnu soxna Mariama Ball Sill ibnu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke ibnu soxna Mariama Ball Sill ibnu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Muhammadan Mbàkke Koso Balla Syll ibnu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soxna Aminta Mbàkke bintu soxna Mariama Balla Syll bintu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak moom soxna Assu Cerno Mbàkke mii bintu soxna Mariama Balla Syll bintu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru waajuram wu jigéen wii nag di soxna Mariama Balla Syll doomu sëriñ Mérina Syll la sëriñ Mérina Syll di doomu sëriñ Ahmadu Ndumbe Maar Syll sëriñ Ahmadu Ndumbe Maar Syll bokkoon itam nag ci wóllërey Maam Mor Anta Sali Mbàkke yi ba bi Maam Mor Anta Sali Mbàkke mi waajuru ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim génnee àdduna sëriñ Ahmadou Ndumbe Maar Sill mii bokkoon na nag ci ñi ko doon taxaw waajuram wu góor wi nag di maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru doomu maam Mor Anta Sali Mbàkke la di rakki nag sëriñ Touba Seexul Xadim ñaari jëmm yu tedd yooyu nag ñoo meññ nag soxna Asu Thierno Mbàkke mi bi mu tolloo nag ci jàng alxuraanul karim waajuram nag maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag moo ko dalal nag alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ Soose amal daaru ji ci ñaari jëmm yi nag la jànge alxuraanul karima bi mu matee dem kër nag lañ ko jébbal doomu sëriñ Touba Cheikhul Xadim ba di Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke biñ koy jébbal nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke waajuram nag maam na Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru rakkam nag maam Cheikh Anta Mbacke ak doomam nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke la cërale nag doomam jooju di soxna Astou na Mbacke mii ngir nag ñu indil ko nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ndindi nag la ko Cheikh Mamadul nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna xadijatu mbàkke bintu soxna asu ceerno mbàkke bintu cheikh mouhamadul faadal mbàkke soxna roqiyatu mbàkke bintu soxna asu ceerno mbàkke bintu cheikh mouhamadul faadal mbàkke soxna fatimatu mbàkke bintu soxna asu ceerno mbàkke bintu cheikh mouhamadul faadal mbàkke soxna abibatu mbàkke bintu soxna asu ceerno mbàkke bintu cheikh mouhamadul faadal mbàkke ñeenti bant nag la am ak sëriñ fallu mbàkke moom soxna asu ceerno mbàkke mi biñ ko jébbalee nag cheikh mouhamadul faadal mbàkke suñ boroom nag nag da doon dogal njaboot gum am rek mu daal di nag génn àdduna bi mu ko defee nag ba muy ñetti bant la ko cheikh mamadul faadal mbàkke yabal nag ca waajuram sëriñ tubaa seexul xaddiima bi ko cheikh mamadul faadal mbàkke nag di yabal ngir mu dem njaareem nag fekki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiima moo du njaay binta nag la ko booleeloon bokkoon itim nag ci ay taalibeem ak waajuru cheikh mamadul faadal mbàkke di soxna awa busoo bi mu eggee njaareem nag la ko sëriñ tubaa seexul xaddiim nag téye moom soxna astu no mbàkke doon ko fa liggéeyloo wax nañ ne daal lu tollu juróom suñ boroom yi téye na ko fa saa bu xëyee nag di ko soqaloo di ko defloo nag cere ba ñeenteelu bantam bi sax nag fa la feeña jamono di soxna Abibatu Mbàkke Seexul Xadim nag faye ko doomu Seydina Omar ba di Xabsatu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim nag di xamal soxna Asu Ceerno di ko xamal ne suñ boroom di xamaloon na ma ne doom ju fi sax de wuroo ko mën a am waaye ñaan naa ko nag ba may ma ko ci Xabsatu mii Xabsatu itam nag dana fi des ba mën a am nag njaboot nag gu amul njaboota ginnaaw bi nag la ko Sëriñ Tuubaa nag ñaanal mu dellusiwaat na ci loxoy Cheikh Mamadou Fadal Faadal Mbàkke ndindi nag la ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag bàyyi woon ab diir nag la def itam nag ndindi Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag indi ko Touba mu bokkit nag ci soxna yi Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bàyyi woon xel bokkitim nag ci ñi nga xam ne ni itam nag nekkoon nañu itam nag ci roon Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag di ko liggéeyal ci liggéey nag bu am solo ba bari na itam nag soxna yu mu dul Faadal Mbàkke da ko woon seenub cër nag mooy soxna Astu Ceerno Mbàkke mi njabootuk Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke gi bari na ci ñoo xam ne ni itam nag soxna Astu Ceerno mi itam nag lañ defoon itam nag mu wéy des loxoy cheikh mamadul faadal mbàkke nag di ko liggéeyal toppi nag ci ginnaawam nag nekk itam nag ab taalibeem des itam nag ci dëkk bii ko cheikh mamadul faadal mbàkke dël nag di Touba ba ni cheikh mamadul faadal mbàkke nag génnee àdduna nag ci atum mu nekk nag ku jaxasoog njabootu ku baax ki sëriñ Touba seexul xadiima cheikh mahamadul faadal mbakke moom lañ ko joxoon nag mu dëkkoo woon ko cheikh mamadul faadal mbàkke fu kawee kawee kawee kawe nag la tegoon nag doomu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi yooyu soxna yu baree baree bari yu cheikh mamadul faadal mbàkke nag dëkkoo woon soxna asu ceerno mii nag la leen féetale woon cheikh mamadul faadal mbàkke tim nag tudde na ko ñaari yoon doom ñu mën cee na soxna asu ceerno mbàkke bintu cheikh mamadul faadal mbàkke ak soxna bintu faal soxna mbenn mbàkke bintu cheikh mamadul faadal mbàkke moom soxna njaaye njaay sëriñ bi ab jigéen itim nag la defoon nag soxna asu na soxna nag yum dëkkoo woon soxna asu ceerno mbàkke mi itim nag moo leen féete woo woon tudde na soxna asu ceerno mbàkke Mbacke doom Cheikh Mourtada Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul ku jaxasoo woon ak soxna Astou Thierno Mbacke la ba tudde na soxna Astou Thierno Mbacke doom mu nekkoon itam nag ku jaxasoog Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul Cheikh Mamadou Bachir itam nag daana ko gane si nag ay yooni yoon Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ku jaxasoo woon ak soxna Astou Thierno Mbacke la njaareem nag la leen Cheikhul Xaadim nag boole woon kóllëre googu itam nag sàmm nañ ko ba Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke fob na doom nag jébbal sutub soxna Astou Thierno Mbacke Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke Mbàkke ku jaxasoo woon ak soxna Astu Ceerno Mbàkke la soxna Astu Ceerno Mbàkke fob na itam nag ku mu yoroon nag ci biir këram jébbal ko Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke na ngir mu dëkkoo ko muy soxna Bintu Mbàkke moom sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke Cheikh Abdou Xaadir itam nag fobaatoon na doomu boppam jébbal ko soxna Astu Ceerno itam nag ngir mu yar ko muy soxna Kunta Mbàkke bintu Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke bi mu génnee àdduna itam nag Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke itam nag moo ko jullee ku jaxasoo nag sëriñ Tuubaa Cheikh Sohaybu Mbàkke la daana def nag guddi gu wala ñaare nag ay guddi mu dem nag seeti nag Cheikh mais bu mbàkkee ku jaxasoo nag soxna muuminatu mbàkke bintu cheikhul xadim la soxna muuminatu mbàkke ku daa seet si itim nag magam ji nag di soxna asu ceerno mbàkke soxna maymunatu mbàkke kubra moom itim nag ku jaxasoo woon nag soxna asu ceerno mbàkke la soxna maymunatu mbàkke laylatul xadar moom itim nag ku jaxasoo woon nag soxna asu ceerno mbàkke la soxna asu gaawaan mbàkke moom itim ku jaxasoo woon nag soxna asu ceerno mbàkke la ci gàttal daal mën nañoo wax ne mbooleem doomu cheikhul xadim yi ñoom ñëpp itim seenu jaxasoog soxna asu ceerno mbàkke nag dafa yéeme woon cheikh mamadul moustapha mbàkke boole woon na sëriñ cheikh mbàkke gaynde Fatma ak soxna asu ceerno mbàkke foboon itam nag doomu soxna asu ceerno ba di soxna abi mbàkke wax sëriñ cheikh mbàkke nag na nekk itam nag sëb jigéen waxoon doomam itam nag soxna xadi mbàkke bu muy gëj itam ci soxna asu ceerno mbàkke mii mu nekki nag ku bari nag ay turandoo sëriñ saaliwu mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke nag tudde na ko doom waajuru sëriñ cheikh asu fay moom sëriñ moodu abib mbàkke soxna asu ko tuddee jaxate mi yoroon nag chef de village surtout Touba muy soxna Assu Buso soxna Assu Ceerno nag lañ ko tuddee Serigne Mbay Jóob itam nag tudde na soxna Assu Ceerno doom na doom soxna Assu Konte yi Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke dëkkoo woon ko tudde ñaari bant yëm am itam muy soxna Mbeen Ñang ak soxna Ayda Ñang ñoom ñaar ñëpp itam nag soxna Assu Ceerno itam nag lañ leen tuddee Serigne Moodu Awa Balla Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tudde na soxna Assu Ceerno Mbàkke doom Serigne Amsatu Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tudde na soxna Assu Mbàkke doom sëriñ Basiiru Jóob tudde na soxna Assu Cerno doom sëriñ Mamor Koso moom itam tudde na soxna Assu Cerno doom sëriñ Alioune Diouf Lambaay tudde na soxna si doom Mbàkke moom sëriñ Cerno doom soxna ci Mbàkke moo leen tudde na soxna Assu Cerno Mbàkke doom sëriñ Cheikh Abi Mbàkke moom soxna Abi Mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na maamam jooju doom soxna astu ceerno mbàkke sëriñ basiiru mbàkke moom sëriñ abdul xudóos mbàkke moom maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru tudde na bàjjanam boobu doom di soxna astu ceerno mbàkke sëriñ daaru saynabu juuf moom sëriñ moor juuf jatti tudde na soxna astu ceerno mbàkke doom soxna maam awa di soxna sëriñ abdul fata mbàkke fàlliilu rakkam soxna astu njaay soxna astu ceerno itam nag lañ ko tuddee soxna mesin juufa soxna astu ceerno nag moo ko tuddee boppam ginnaaw bu mu ñëwee nag ci loxoy soxna astu ceerno moom soxna mesin juuf fa la ko soxna si laaj nag nu mu tudd mu di ko xamal nag Mbesine Diouf nag laa tudd soxna si nag di ko xamal ne nag Mbesine nag du aw tur tudde naa la nag sama bopp di soxna Assu soxna Mbesine Diouf moom nag di Assu Diouf mooy waajuru nag soxna Faal mi soxna Assu Ceerno nag yar mu yar itam nag ñu takkoo takkoo takku nag ci biir këram ci ñi yaroo ci biir këram nag ñu mën cee ràññee soxna Njóoba Ka soxna Assu Sill soxna Maguette Diop soxna Ami Kebe soxna Ndey màggat Dieng di maamu sëriñ Cheikh Colle moom sëriñ Abdou Karim Mbàkke Faliilu soxna Fat Diop moom sëriñ Daam Bopp soxna Jaal soxna Aminta Mbàkke di doomu maam Cheikh Anta Mbàkke soxna Busa Jaxate soxna Gay Kontey soxna Awa Ba soxna Mbenn Sekk soxna Xadi Silla soxna Waali Njaay ci dëkk bii nag di Sagata soxna Jonn Ñas ci suuf si nag di Njégéen soxna Asuja moom sëriñ Moodu Ja Kaso soxna Ummi Mbay bu Ndindi soxna Xari Géey soxna Faatu Modu Sow soxna Busa Dem soxna Asuloomu Mag soxna Asu Jaañ ci Daaru Muxti soxna Asu Kontey ci Tuubaa soxna Asuloomu Ndaw soxna Faal ci dëkk bii nag di Koso soxna Faati Géey ci dëkk bi itam nag di Koso soxna Maam Mareem Njaay ci Sagata Diarra soxna Sooda Jóob ci Daaru Muxti soxna Maam Asta Ñang ci dëkk bi nag di Kër Ñang soxna Jaane Géey nag ci Njaareem soxna Moomi Géey di waajuru Sëriñ Moustapha Mbàkke Xasida soxna Assu Mbay mu mag ci Daaru Muxti soxna Assu Mbay mu ndaw soxna Assu Seen ci Tuubaa soxna Assu Njaay Koko soxna Mbaj Njaay ci Ndindi soxna Assu Silla ci Koso soxna Bintu Mbàkke moom Sëriñ Abdul Xudoos Mbàkke soxna Kunta Mbàkke moom Sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke soxna Assu Jóob bu Daaru Muxti soxna Xadi moom Maam Cheikh Anta Mbàkke soxna Fat Silla Jóob bu Daarul Xudoosa soxna Assu Seen bu Dakar soxna assu seen moom sëriñ su lay seen ci Touba soxna assu Mbàkke lay moom sëriñ daam lay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo xam ne nii itam nag ci kër soxna si itam nag la ñu yaroo mu wéy nag des nag ci loxoy cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke nekkit nag ku cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke nag doyloo nekkit nag doomu baayu cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke bokkitim nag ci soxnay cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke yi di tarbiyewu nag cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke lépp loo xam ne nii daal cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke nag bëgg na ko soxna ji moo xam dongay cheikh mamadul faadal mbàkke yi gani cheikh mamadul faadal mbàkke yi ba ci taalibe yeeg soppe yi nga xam ne nii nag waa kër cheikh mamadul faadal mbàkke lañ rakki cheikh mamadul faadal mbàkke itim nag ni la leen fonke woon doomu cheikh mouhamadul faadal mbàkke itim nag kasaalika soxna yi ma cheikh mamadul faadal mbàkke dëkkoo woon itim kenn ku ne itim nag soxna asu na mbàkke defoon na la itim nag ne boppam ba yow sax nga gënal ko itim nag boppam cër boobu mu amoon nag ci cheikh mouhamadul faadal mbàkke lu ëpp itim nag ci njabootu cheikh mamadul faadal mbàkke gi soxna yi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke dëkkoo woon itam nag delloo woon nañ ko ko kër bu yaatoo yaatoo yaatu daal la am ci kër googu nag mu nekkoon nag dafa liggéeyal suñu boroom di kër Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacke ñi ko xamoon nag xamoon Cheikh Mamadou Fadal Mbacke daanañ wax ne nag soxna Asu Ceerno yittey nag jàmbur moo ko gënal nag yittey boppam ba saa boo ko gisee nag mu dugg kër mu dul Mamadou Fadal Mbacke xamal ne daal bala faa jóge kenn ku ne daal yitte bi nga doon jàmbat nag dana faju soxna Bintu Njaay nekkoon Cerno nag moo ko yar ba xëy ko jébbal nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke noonu mu ko defee nag ci soxna Bintu Njaay ni la ko defee itam nag ci yeneen i yeneen i soxna yoo xam ne nii nag moo leen yar nag ba xëy leen jébbal nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke soxna Bintu Njaay nag muy waajuru sëriñ Abdou Samad Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke xamal na ma ne soxna Astou Cerno nekkoon na nag ku baax nekkoon na itam nag ku mën a yar nekkoon na itam nag ku bëgg njaboot nekkoon na koo xam ne nii nag saa su ne itam nag yittey Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke rek nag lay dabu bari na nag ay soxna nag yu defi jaloore waaye soxna Astou Thierno mii tim nag ca la bokk moom soxna Bintu Njaay nag mi waajuru Cheikh Abdou Samad Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mi ngi may xamal ne taxawaay bu yaatoo yaatu ak jikko nag ju yaatoo yaatu ci soxna Astou Thierno nag def ci moom tax na itim nag képp ku mu gis nag mën naa dëkkoog yow ngir jëmmi soxna Astou Thierno Mbacke mii sant na itim nag fépp nag fu sant yam jëmm jooju nag di soxna Astou Thierno Mbacke ci xol bu yaatu nag te ubbeeku la soxna Bintu Njaay nag waxeek man ci keroog nag bi ma koy laaj nag kan mooy soxna Astou Thierno Mbacke laataa waxtaan way jeex itim nag nag tuuru na jëmm jooju nag daa kawe woon nag ci moom soxna faal bokkoon itam nag ci ñi nga xam ne nii cheikh ma faadal mbàkke itam nag dëkkoo woon na leen soxna asu ceerno itam nag moo ko yar ba xëyoon ko jébbal itam nag cheikh mouhamadul faadal mbàkke wax na ne fi mu jaar ak soxna asu ceerno mbàkke yar bi soxna asu ceerno mbàkke nag def ci moom ci ak dundam amul nag ab jaaxle nag bu mu ciy def amul lenn loo xam ne nii nag dana ko tiital doomu maam ceerno bi taxawaay bu yaatoo yaatoo yaatu daal bi mu def ci moom yar na ko nag ci biir këram ba mu xëy mata dem kër mu jébbal ko nag ki ko yor muy cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag ngir mu dëkkoo ko ginnaaw bu mu jógee itam nag ci loxoy cheikh Mamadul Faadal Mbàkke koso googu mu demoon itam nag nekkaat fa di fa liggéeyal suñ boroom itam soxna si itam nag moo ko fa yóbbu ginnaaw bu mu jógee foofa itam xamul kenn nag ku dul soxna si léppam nag soxna si la soxna Daba Mbàkke bintu maam cheikh Anta Mbàkke nag doomu soxna xari tey ba silla la moom soxna Asu Ceerno Mbàkke nag doomu soxna Mareema Bàlla silla la soxna Mareema Bàlla silla ak soxna xari tey ba silla ñoom ñaar nag ñoo bokk nag waajuru góor nag ak waajuru jigéen soxna Maymuna xamal na ma ne mook soxna Astu Ceerno seen ñaari waajur yi nag ñoo bokk nag ndey ak baay waaye li ko soxna Astu Ceerno nag jàngal wala yar bi ko soxna Astu Ceerno nag def ci moom loola koo xam ne ni daal mi ngi koy def doo jaaxle nag ci àdduna te dara itam nag du la jaaxal te koo gis itam nag da nga ko bëgg ndax kat li soxna Astu Ceerno nag def ci ñu baree baree baree bari nag mu teg ci bët loola itam nag roy na ko nag ci soxna Astu Ceerno ba tax na itam nag biñ ko booleeg boroom dër bi moom itam nag def na loolu muy fob nit nag yar ko ca ba muy ndaw nag ba mat a dem kër nga def ko nag na sa bopp jébbal ko nag ki la yor loolu itim nag gis na ne daal jikko la nag ju baax a baax gis na itim nag soxna Astu Ceerno def ko nag ci mbooloo moo tax itim nag moom itim def na ko itim nag ci ay mbooloo ku gën soxna Astu Ceerno nag yombul wala amul ndax ci taxawaay ciw doxaliin yittee jàmbur nag gënal ko fopp nag yitteem taxawaayu jàmbur itim wala bëgg-bëggu jàmbur itim gënal ko fopp itim nag bëgg-bëggam bëgg doomu aadama ak mën a maslaa gën koo man soxna Astu Ceerno itim nag yombul moom soxna Daba Mbàkke bintu maam Cheikh fi mu jaar soxna Astu Ceerno du dugg ci moom nag mu nettali ko nag doomu aadama moom itam nag waxtaan wiñ séqoon laataa muy jeex itam nag rongooñam nag tuuru na fi mu jaar ak soxna Astu Ceerno Mbàkke mii soxna Nogay Géey itam nag soxna si nag moo ko yar xamal na ma ne daal seen bàjjan nekkoon nag turandoo soxna Aysa ku mënoon a yar la ku bëggoon nag njaboot la ku ñeme woon itam nag njaboot la ku daa nemmeeku itam nag ñin ko jox la ba saa bu la masaa yónni la ngay sol nag ca fam la yónni itam nag dana ko xool mus sa bëgg itam nag ku taq mus sa bëgg koo xam ne nii nag bu ngay waxee itim nag da nga koy xam xuloo wala werante itim nag doo ci bokk jikko yi nag ñi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim yar nag jikko yooyu dong nag la soxna Astu Ceerno Mbàkke mii nag yoroon soxna Nogay Géey nag mi ngi ñuy xamal ne seen bàjjan bi ñàkk guñ ko ñàkk dong nag moo leen jaaxal waaye yombul nag ci bàjjan yi am na ñeneen nag ñu ñu waxtaanal ñoo xam ni dem nag ñu jaxasoo woon ak nag soxna si lañ ñu ngi ñuy xamal ne daal turandoow Seydina Aïcha jikkoy turandoom dong nag la yoroon musta bëgg nag coow lu bari cole yi nu soxna yi xam ne nii nag ñoo ci lislaam kim nag la daa soloo soo ko masaa gis nag gis soxna yi bar sàq yi di soxna yi dëkkoo woon nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nañ meloon dong nag seenu doxalin itam nag la yoroon moo xam ci soxna Awa Buso moo xam ci soxna Faati Silla Libaasa moo xam ci soxna maam Xari Mbar Sill ak yeneen nag yeneen i soxna yi noonee ñu doon doxale noonu itam nag la doomu maam Ceerno bi itam nag daa doxale ku ñeme woon itam nag kilifteef la woon ku daa tàggat itam nag mbooloo mu bare bare bare la woon ku ñeme woon itam nag dépense la woon waaye ku bëggoon itam nag lu baax nag la woon nag mu tàng colin wi nag wenn nag la woon li lislaam maye dong nag ci jigéen nag mu feeñ loolu tiim dong nag la daa maye nag itim nag mu feeñ nag ci ay cëram te képp kum yar itim loolu itim nag ci la la tàggat mu nekkoon itim nag ku bëgg nag lu baax ku daa jàng itim nag alxuraanul karima ku daa gëstu itim nag doxalinu ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam ku sàmmoon itim nag ak muritam ku bëggoon itim nag ki ko suñ borom booleel nag ci wàllu liggéey muy cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke noonu mu bëgg cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke itim nag ni la bëggee woon njaboot gépp nag nag ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke waaye ni la bëggee woon itam nag yoonu murit wi ba këram nag nekkoon na nag këru jirim yi wala këru baayo yi lu xew masaa rëy rëy la ko ca lislaam sant dong nag la cay doxalee lu mbooloo masaa bari bari bari la ca lislaam santaane nag ci jigéen itam nag mu def ko ca loolu dong itam nag la ca daa def mu nekk nag ku xaritoog nag mbooleem nag ax lu murit gi seenu doxalin dong nag la yor kum ci dégg itam nag ngay doxalee itam nag nu baax loola itam nag dana ko roy ci këram soxna maam itam nag moo ko yar moom de xamal na ma ne mbooleem doomu cheikhul xadim yi niñ fonke woon nag doomu maam Thierno bii nag ëpp na moo xam nag ci ñaari soxna Maymunatu Mbàkke yi soxna Muminatu Mbàkke soxna Xari Mbar Silla mi nekkoon soxna sëriñ bi doomu cheikhul xadim nag yu góor yi cheikh Mamadul Faadal Mbàkke cheikh Abdoulahat cheikh Abdou Xaadir sëriñ Soye bu Mbàkke soxna Assu Gaawaan Mbàkke soxna Muslimatu Mbàkke xaritu soxna Assu Thierno nag la woon ñoom ñaar itam nag ñoo bokk nag ay maam nag ci waajur wu jigéen bokk itam nag ay maam nag ci waajur nuróo seenu nuróo itam na kenn daawu ko nattable ba boo gisee fotob soxna musli gis fotob soxna asu ceerno daa xam ne ñoom ñaar ñii nag nuróo nañ soxna muslimatu mbàkke moom itam kenn la woon itam nag ci soxna asu ceerno mbàkke mii ci gàttal daal képp koo xam ne nii daal doomu seexul xaddiim nga ni nga fonke woon daal sa doomu baay bii nag ëpp na te moom nag seede la ci bari na nag fu ci soxna si daa dem daana ànd ak moom bari na itam nag ñu daa ñëw itam nag ci doomu seexul xaddiim yii daa seet si soxna asu ceerno itam te fekke na ko moom itam nag lépp lu mu am itam nag soxna asu ceerno itam nag moo ko ko ko defal su manoon wala mu am soxna si nag du fi bàyyikoo mukk moom it nag fi ñëpp jaar rek la jaar li mu xam daal ci soxna asu ceerno munu koo wax saa su koy wax nag xolam tooy foogoon na ne jëmm ji nag di soxna asu ceerno nag du fi ko foogoon na ne itim kenn rek moo mën a yare kenn itim rek moo mën a xettilee muy doomu maam ceerno bii nag di soxna asu ceerno ndax fi mu jaar ak moom maamam nag sëriñ Mouhamadou Faa jamañang rek la koy seedee soxna ko yar nag ba xëy ko jébbal nag tax mu feeñ jamono soxna Astou no nag moo ko ko defal ñoom ñëpp itam nag ñi ngi maasee ci nag ànd ak mbooleem turandooy soxna Astou Thierno yi wala nag ñi soxna Astou Thierno nag yar di leen xamal ne daal sant nañ seen bàjjan ñi ngi ndamoo nag seen bàjjan ñi ngi yaakaar na itam nag ku leen gën bàjjan yombul waaye ginnaaw seen bàjjan itam doom ja nag soxna abi itam nag noonu itam nag li leen taxawoo woon ginnaaw soxna abi itam sëtub soxna Astou Thierno bii di sëriñ Cheikh Abi Mbàkke jooyuñu dara nammuñu dara lépp loo xam ne nii daal soxna Astou Thierno nag daana nag ci la soxna abi itam nag daa ko def ci ñoom lu ko raw la leen nag seen doom jéeg seen sët bii nag di def nag ci ñoom jort nañ ne nag sëriñ cheikh abi nag day góor waaye bu doon jigéen ñu foog ne nag seen bàjjan ba nag ba nëga ni nag mooy dox ni mu leen jàppe na leen seen bàjjan jàppe woon nag yombul sëriñ cheikh abi mii nag kiimaan la mu yar nag ñu takkoo takkoo takku bëgg googu mu bëggoon cheikh mamadul faadal mbàkke tax na itam lu takkoo takkoo takku nag ci soxna cheikh mamadul faadal mbàkke faadal mbàkke itam nag féetale woon na ko soxna asu ceerno mii am kóllëre ak ñetti doomi maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru yi muy soxna Faty Thierno Mbacke mii maamu sëriñ Cheikh Say Mbacke nag bu sëriñ Touba Cheikh Soin bu Mbacke ak soxna faati Faty Thierno mii waajuru nag sëriñ Abdou Samad Bousso ak soxna maam sa Boussa Mbacke Thierno mii maamu sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khader Mbacke ñetti doomi maam Thierno yi nag ak moom foo leen masaa gis saa gis nag ka ca des nag ca wet ga kóllëre nag gu yaatoo yaatu nag guñ séqoon ngir jëmmi nag ñu bokk nag di maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal yooyu nag cheikh mamadul faadal mbàkke am na itim nag ñu mu ko féetale woon ñu mën cee ràññee nag sëriñ ceerno faal sëriñ ceerno faal mi nag maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moo ko joxoon nag cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ ceerno faal sax tuddee na soxna assu ceerno nag doom ak ku ñuy wax nag sëriñ mbay ndaw moom itim nag tuddee na soxna assu ceerno nag doom ak sëriñ moodu njaay binta moom itim nag tuddee na soxna assu ceerno mbàkke doom sëriñ moodu njaay binta mii bi ko cheikh dul faadal mbàkke nag di yabal ngir mu dem njaareem nag fekki ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xadim sëriñ moodu njaay binta mii sax nag la àndaloo Ndondon sëriñ Modou Ba bu Louga sëriñ Fallou Ndiaye bu Mbour sëriñ Mandiaye Diagne sëriñ Thierno Ndiaye nag bu Jolofa sëriñ Fallou Ndiaye Ndiol sëriñ Mbaye Sall bokkoon tim nag ci jàmbaari Cheikh ma Fadal Mbacke yi ba tey tim nag ñi ko Cheikh Mamadou Fadal Mbacke boolee loon ñu mën cee ràññee nag sëriñ Ñang nag guy gi moom itim nag tudde na soxna Astou Thierno Mbacke doom ak ku ñuy wax nag sëriñ Modou Ñang menuisier ak ku ñuy wax nag sëriñ Góora Ndiaye ñii daal bokk nañ nag ci ñi nga xam ne nii nag ay taalibe Cheikh Mamadou Fadal Mbacke lañ woon Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag tëralee woon nag soxna Astou Thierno Mbacke mii ñaari doomi cheikh mamadul faadal mbàkke yiitim ñu jaxasoo woon ak soxna assu ceerno mbàkke lañ xamoon nañ ne kat soxna assu ceerno mbàkke nag amul nag doom ju góor ñoom ñaar ñiitim nag nekkoon nañ nag doomu soxna assu ceerno mbàkke comme nag ni ko yeneen doomu cheikh mamadul faadal mbàkke yi defe woon ñaar ñii moom dañ cee gënoon a ràññeeku muy sëriñ moodu moustapha mbàkke falilu ak cheikh mouhamadul lamin baara mbàkke donga yi itim nag naka noonu tuubaa nag la féete woon ba xëy nag génn àdduna nag ci atum 1987 mi ngi génn àdduna bu gàtt nag bu ko tëral ci kër gii mu dëkkoon nag ci Touba nekki nag ci ginnaaw kër Cheikh Mamadou Fadal Mbacke gi ci bisub altene ñaar fukki fan nag ci weeru tamxarit ci atum 1408 nag ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan nag ci weeru tamxarit ci atum 1408 nag ci gàddaay gi dëppoo muy lundi 14 septembre 1987 lundi 14 septembre 1987 ñu yëgal ko nag Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yëgal ko itim nag kiñ doon xoole nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke di Serigne Modou Moustapha Mbacke falilu sëriñ tuuba cheikh abdoulahat mbàkke hmm. moo sàkku itam nag ca doomu baayam ba xaritam ba cheikh abdou xaadir mbàkke ngir mu jullee nag seen doomu baay bi di soxna assu no mbàkke ñu denc ko nag ci armeel yu mag yi ay xalifaam nag nii la tëdd li ko dale nag ci atum 1987 ba ci atum 1993 doomam ja nag soxna abi mbàkke moo nekk nag ab xalifaam ñaareelu xalifa soxna assu ceerno mbàkke mooy sëtam bii nag di sëriñ cheikh abi mbàkke ibnu soxna abi mbàkke bintu soxna moo ci atu 1993 nag ba nëga ni ñu koy ñaanal nag suñu boroom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu maamam boobu ak mbooleem nag ñu mu séqal soxna Astou Thierno Mbacke soxna Astou Thierno Mbacke amul nag bis nag buñ ko taxawal nag ci luñ tudde nag ak màggal waaye nag bis bii nag mu làqu muy ñaar fukki fan nag ci weeru tamxarita bis boobu nag saa bu del siwaatee njaboot gi àndak ak nag ab xalifaam di sëriñ Cheikh Abi Mbacke daañ ko jagleel nag wàcceel nag ay kaamil ci kër gii nag mu génnee àdduna ci ginnaaw kër Cheikh Mamadou Fadal Mbacke gi mook doomam ja nag soxna Abibatu Mbàkke ñoom ñaar nag la ñuy boole wàcce ndool nag ay kaamil ci bisum ñaar fukki fan nag ci weeru tam waaye bis bii nag ñuy fàttaliku nag mu dul Faadal Mbàkke nag nekkoon yaakaaram nekkoon itam nag ab sëriñam danañ ko ci fàttaliku waale moom soxna Astu Cerno Mbàkke ak doomam nag soxna Abibatu Mbàkke ci li ñu tuddee nag ak màggal ñuy ñaan ca doomu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba kam faye woon doomu Ababakar ba bokkoon itam nag ci saxa bay ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam yi yàlla nañu ko maas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ boroom saafara ci dara jay maam Ceerno ak Cheikhul Xadima amiin Cheikhul Xadima amiin Cheikhul Xadima amiin